aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inni ibaadi laysa lak sultaan wala bu yaxzamuka min annaas ya allah barke borom Tuubaa eh, bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki umul islaam yëpp ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér eh, di siyaare sunu jëwriñ sëriñ Yaafi Busa al imaam Eh, ak mboolem waa daayira Muxaddamaat Xidma bi nga xam ne ñooy taxaw jumaa ji tey jii nag ñoo ngi fii ci jumaa jumaay Touba eh, ànd ak sëñ Fallou Mbacké moom sëñ Khalil moom Cheikh Mouhamadoul Fadal eh, ak ànd ak jëwriñ joo xam ne ñu koy wax sëñ Mouhamadou Bamba Seck ñu bàyyi ko ba Burkina muy jëwriñu daayira Cheikhul Khadim ba fa nekk bi ñu egsee ci jumaa ji tam fekk nañ fi secrétaire général sëñ Abdoul mu talib ak sëñ Abdou Lahad Maam Asta eh, ak sëñ Abdou Lahad Thierno ak sëñ Abdoulaye Diop ak mboolem kilifa yi fi fekk yëpp eh, sëñ Mouhamadou Bamba nag mu ñëw ngir indiwaat addi ji nga xam ne eh, waxtu wu nekk nii lañ koy defe muy ci koor gi muy ci màggal gi mu màggal si nag ñëw teewal fi waa Burkina yëpp ànd ak sëñ Fallou mi ngir indi seen addiya kon xam naa dañuy gàttal kàddu yi rek. waaye nag moom lu mu néew néew rek mënees naa seede ci moom pëstéefam ak yéenam ak bëggal liggéeyal seexul xadim ndax la gis benn vidéo muy daw ci ci ci Facebook bi euh, mu mu mu mu contacté ma ba jot ma daal di ne moom bu ñëwee Sénégal dana fi ñëw bi mu ñëwee ci jumaa ji la jullee suba fii 2016 nuyu imaam sëñ Yaafee ne ko man daal damaa gis liggéey bi bëgg cee bokk sëñ Yaafee ne ko xaaral ma woo Yasan keroog kër ga laa jóge ñëw bi ma ñëwee laa ànd ak moom ba ba ca kër ga ma lijjanti yóbbuwaat ko ci affaire sëñ sëñ ablaat euh, euh, affaire jox ko benn bolog mooy bolog yooyu ñu defoon ay wecc benn mille mil CFA lañ ko defoon jamono yàq na loolu daal moo ko dugal ci liggéey bi waaye boobee ak tey euh, fexe na ba dëkk dëkk ba taalibe sëñ Tuubaa yëpp wuy si ci ba daaw sëñ Fallou mi la ñu àndal kër sëñ Afé ñu jébbale liggéey ba ren jiitam noonu la defaat ñëwaat kon sëñ sëñ laat du baam Bamba mii daal ku am taxawaay la waaw kon xam naa dañ lay jox kàddu gi rek eh, nga joyal cant ak ngërëm daayira bi tam ñun ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm xanaa ngeen gën a rek soññewaat ba continent Afrique bi yëpp rek nii ngeen def ñu fexe ba ñëpp wuy si rek ñu ànd liggéeyal Cheikhul Khadim bisimilah asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi sant sant ku nekk turam ak santam di sant bokk taalibe yi ñu ngi leen sant bu baax ci taxawaay bi ñëw naa jébal addiya Muxaddamatul Xidma bu Burkina Faso inne yu ñaar fukki ju nekk juróom muy cent vingt cinq mille ci kàllaama tubaab ngi leen di sant bu baax ñu ngi ñaan waa jumaa ji ñaan imam Afia Bousso di ñaanal seen Mountakha Mbacké na fi yegg te wér di la ñaanal di ñaanal waa Burkina Faso mu am jàmm ndekki bi su amee jàmm rek dina gën a baax voilà taalibe yi Burkina Faso yi te am nañu Pastef euh, saa yu leen laajee dinañu joxe dikk bay xaw a kii doy waa temps yi mais soo leen ñaanee maam jàmm dina gën a baax ñu ngi sant bu baax ci liggéey bi ñu boole ci liggéey bi rek la boole ci liggéey seen Touba amoo santam sant ko rek nga mën a def voilà. comme ni ko jëlin waxee seen Assane Diop noonu la mbir mi demee mag sama benn xarit ñoo fi ñëwoon Mor Gana Mor voilà moo gànna waaw ñu fi ñëwoon ndeysaan ni mu leer yëpp noonu la demee di ñaan yàlla am yëpp am fi képp am fi jàmm voilà am xew lu bari mën na ñëw ñibbi si ci suñu dëkk bi Touba jërë ngeen jëf maa ngi leen sant bu sama seen laa fi àndal seen fallu bu seen xalil voilà maa ngi fàttali bu baax seen xalil mo ñëw naa fexe jàpp ci liggéey jumaa ji si bi ma jëlee bokk yi dem naa ba mu jox naa fekk jàpp naat naat bu baax fas nañ ci jàpp bu baax. alhamdulilah bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, maa ngi nuyu kilifa yëpp fi fekk sëñ Abdoulaye ak sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye Bousso ñu leen di bu baax di nuyu sëñ Assane di nuyu waa Burkina ci njiital Modou Bamba mi yàlla def. sëriñ bi joxoon ko ndigal mu jàpp ci liggéeyu sëriñ bi ñu sëñ xalil xam ku ne xamoon na diggante mag jumaa ji moom ab cëram la woon moom da ko lépp fi la ko daan defe ba tax na mu laajoon ko ci ndigal mu jox ko ci ndigal na ko jàppal ci liggéey bi bi mu fi jógee it nag mu waxaat ñu ko ñu feddiliwaat loola ndax suñu barab la kon nag ñu ngi ko ci sant bu baax ci moom it boole gi ñu boole ci loolu ci liggéeyal sëriñ bi di ko soññi di soññi mbokk ya fa nekk yëpp ñu gën a jàpp ci liggéey bi xam ne mooy liggéeyu sëriñ bi ndax li sëñ bi batale woon jumaa ji cee bokk kon nag ku ci jàpp rek yaa ngi ci liggéeyu sëñ bi ñu ci gën a bu baax di ñaan yàlla noonu mu ko waxe suñu boroom def xéewal ci dëkk ba may leen jàmm ba li ñu yéen a liggéeyal sëriñ bi fii ñu def ko ñu ngi ko bëgg te ànd ko mbokki taalibe yëpp ak kilifa gi sëriñ aafe ak njaboot gi yëpp suñu xol daal sedd na jugu ci boole gi ñu boole ñu di siyaare nag bu baax a baax jërë ngeen jëf. Ah, bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa wa barakaatu. Eh, sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Modou Bamba Seck di nuyu waa Burkina Faso yëpp Moukhaddamatoul Khidma Burkina. di leen nuyu tamit ci turu Serigne Afia mi nga xam ne <clears throat> moo jiite liggéey bi ak kilifa yi nga xam ne ñoo ko fi wutu <clears throat> Sëñ Assane lim leen léegi di am mbégte bu baax di leen dalal tamit fii ci jumaa ji e, ngir e, liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk muy liggéeyu daayira Muxaddamatul bi ci jumaa ji nga xam ne maanaam mbiri taalibe yëpp la noonu nga ko waxee ak seere Sëñ Assane wax tamit nga xam ne da ngeen a gis vidéo bi rek xam ne lii seen mbir la tax ngeen yitte yittewoo ko ba ñëw ba agsi euh, loolu tamit pas-pas la euh, muy lu am solo ndax it li suñ Fallu doon wax rek ñun liggéey bi xam nañ ne euh, ñoo ñëpp ko bokk lu leen kenn lépp ñëpp la lu nay ku ne ngi ci te ngottuñ ci kon nag bëgg nañ taalibe bu nekk jariñu ci te weesuwul li ñu li ñuy li ñu dajale di ko fi indi génnul di dem ci entretien bi moo xam ak bale wala serpillière wala liquide bu ñuy raxase wala mu jëm ci yeneen yoo xam ne euh, dañ ciy taxawu barab bi rek kon su fekkee ne loolu xam ngeen ko ba tax at mu nekk moo xam koor la wala màggal ngeen dajale seen addiya indi ko ren jii ngeen indi ñaar fukki junni ak juróom tey jii tamit di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar kon dafay mel ne sëriñ bi tombale na ak mbir yi kon yàlla na ko yàlla nangu loolu loolu euh, du saayir euh, sëriñ Fall tamit ñu ngi lay sant bu baax. Euh, cant gi ñuy sant taalibe yi nekk Burkina ci yow lañ koy jaarale euh, ñuy fàttaliku bu baax tamit suñu Ibrahima Khalil ñi nga ko waxee ku jumaa ji ñoroon la ku imaam yi ñoroon tamit ak ak ak diine ja ak ñi fi yëngu loolu tamit moom laa xarwa ndax euh, suñu fàllu mi waajuram kenn ku nekk xam na ne cër bi mu am ci jumaa ji rëy na lool ci njëlbeen ak ba ci mujj Euh, liggéeyu ma xa dayru ma xadima xadima tamit yàgg na cee jàpp ndax man daje na ma ak moom Argentine ak Brésil waaw fan la fekk yaakaar naa waaye <clears throat> bi mu yëgee ne yor nañ carte yu jëm ci dayru ma xadima xadima dafa joxe ndigal dafa jox ndigal jëwriñ kenn ku ne xam na ne foofu am na fa ay ci ab cër ñu def fa liggéey bu am solo boo xam ne dajale fa addee ju bari mu ñëw ci dayra kon bu ngeen doonee bokkee ci njabootam nekk Burkina di def lu mel nii yaakaar naa fa mu nekk mi ngi ci teg bëtam te dina ci bég lool kon moom it yàlla na ko yàlla jotale ci yool bi waaw la yéene woon lépp it eh, yow mi fi bàyyi it nga mottali ko bi barakati xarim rasul suñ borom nangul ñu jëf ji te ñi ko joxe it ak ñi amoon yéene joxe suñ borom may leen ay jumtuwaay yoo xam ne danañ joxe lu lu gën a fawxal yi te suñ borom nangu jëf ji barakati xarim rasul ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di leen ñaanal tawfeex ak taysiir di ko ñaanal sunu bopp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu